dañu continuer guddi gi ak sang bu tedd bi Seydou Mawla Baye Demba mu defal ñu waxtaan incha allah ba ila macha allah. mbaa yaa ngi tagg yonent bi sallallahu alayhi mu ne jaaha talqu waya fi daari fardan fatal xuuru baxtasan bi tawaali aminatu bintu wahbin keroog bi nga xamee ne moo nga ca këram mat wi dëkkal na ko te moom kenn moo fa nekkoon amul kenn ku ko wéttali bàyyi moo tax bàyyi ne wax ya daari fardan moom kese moo nekkoon ci kër gi moom aminatu bintu wahbin fa atal xuuru xuurul ayni yi ñëw xuurul ayni yi bañ ñoom ñoo ko dimbale waaye ñoom ñëpp dañoo ñëw ci mbetteel Aminatu yaakaarul woon loolu de loolu yëpp lan moo ko sababoon ndax ëmb yonantu bi nga xamee ne moom mujj ci yonantu yi de sallallahu alayhi wa sallam bàyyi mu ne waatatha qawaabilun ummu isa summa siyatun atalli naali mu ne ay jànq ñëwal na ko moom aminatu bintu waabin bokk na ci jant yu jànq yooyu ummu isa mooy yaayu isa yaayu isa mooy maryam ibnata imran mu nekkoon jigéen joo xam ne jigéen waliyatu la de waaye siddiqiya la itam baay radiyallahu wax na ne lu tax maryam nekk waliyu siddiqi mooy li alquran di wax ne ah, wa maryama ibnata imran allati ahsanat farjaha fa nafaxnaa fii min ruuxinaa wa sadaqat bàyyi mu ne wa sadaqat boobu moom moo ko yéegee ci siddiqiyatu de radiyallahu anha wali yu siddiqiyatu nag mooy wali yi nga xam ne waxtu nekk rek ñu ngi jàkkaarloo yàlla bi de wali yu siddiqiya wala wali yu siddiqi mooy wali yi nga xamante ne waxtu wu nekk ñu ngi jàkkaarloog malaaka yi wali siddiqi yi mooy wali yi nga xamante ne waxtu nekk rek ñu ngi jëlee xam-xam direct ci pays bi sans intermédiaire moo tax sufiyanke yi naa siddiqu man yaxudul ilma min allahi bila wasitatin siddiqu daal mooy kii jël xam-xam ci yàlla direct sans intermédiaire kooku mooy wali siddiqu de mariam nag ci ñooñu la bokkon mariam moomu fekkee na keroog bi nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wa mu ngi wàcc àddina de ak kan asiyatu asiyatu bintu mazahim moo nekkoon jabaru firawna moom mi nga xam ne daan na wax ne rabbi najini min firawna wa amalihi wa najini min qawmi zalimin moo doon wax ne rabbi ibni li indaka baytan fil janna wa najini min firawna radiyallahu anha asiyatu daan na wax ne yow yàlla nang ma musal ci firawna ak tooñaangeem yow yàlla nang ma tabaxal dëkkuwaay wala nekk fa ca yow radiyallahu anha ñii ñëpp fekkee nañ keroog bi nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi gane si àddina de nettali nañ ci hadis ne xatib al baghdadi radiyallahu anhu nettali na ne anna aminata qaalat lama wadaatuhu alayhi salatu wasalaam raaytu sahabatan azimatan laha nurun asmau fiha sahil al xayli wa xafqan al ajnihati wa kalaam al rijali hatta xashiyatuhu wa guyiba anni fa samitu munadiyan yunadi tuufu bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam xutay bu wax na ne al-Baghdadi mu ne Aminatu bintu Wahbin keroog bi nga xamante ne maa ngi koy am wala mu ngi gane si àddina sallallahu alayhi mu ne dafa gis benn niir mu ne niir bi bi ñëwee mu ne niir bu mag la waaye ci biir niir bu mag boobu mu ne am na leer bu nekk ci biiram leer boo xamante ne leer bu jéggi dayo la moom moo nekk ci niir bi waaye ci biir leer boobu itam mu ne dégg na fa ay ngexalu fas fas yaa ngi ngexal ci biir leer bi de ak leer bi ni mu leeree ci biir niir bi mu ne dégg na fay ngexalu fas beneen bi itam mu ne ak ay mbagg yoo xamante ne ñu ngi dóorante te mbagg yooyu kat liñ ci jublu woon mooy mbaggu malaaka yi ñoom ñëpp ñu ngi woon ci biir niir bi ñuy njëkkante jëm ci aminatu bintu waabin mu ne wa kalaami rijaali mu ne ak ay waxu góor yaa ngi dégg ñoom ñëpp ñu nekk ci biir niir bi ñu nekk nekk ci biir leer bi loolu nag mooy li sëriñ bi waxoon sànq rek yàlla dafa waxoon yonent yi ne leen maa ngi leen di yónni waaye yéen ñëpp su ma leen yónnee dama leen di yónni ci ki nga xamante ne moom mooy yonent bi mujj ci jamono ci leeram laa leen di yónnee yéen ñëpp ci maqaamam laa leen di yónnee ndax su ñëwee mujjuñ ci yéen ndax di ngeen ko nangul ah wooy yonent yi ne na naa axakay nangul nañ ko ñun ñoom ñëpp ñu signé ne waxtu woo xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw na ñoom ñoom dinañ ko nangul ñu si ñu moom de sallallahu alayhi wa sallam bi loolu amee keroog bi aminatu di am doom waaw keroog nag mboolem yonent yi teew nañ ci jotaay bi de sallallahu alayhi wa sallam loolu moo tax aminatu mu ne wa kalaamu rijaali gis naa góor ñi itam de hatta xasiyatu mu ne ba ma tiital ko ba ma ragal mu ne mënatuma ah, sama sama fit wi dalatut ndax ragal gi ma ragal mu ne waxu yibaan nii mu ma jékki-jékki ba yàgg rek ma gis lépp dem dara nekkatul sama kanam dara gisutuma ko de sallallahu alayhi wa sallam ne nag fa samiatu ci la déggee moom aminatu bintu wahabin mu dégg munaadiyan benn wootekat yu naadi muy woote lan la doon wax tuufu bi muhammadin tawaaf leen muhammad wër leen muhammad wërale leen muhammad sallallahu alayhi wa sallam fii jamil ardi wërale leen ko mboolem kaw suuf nangeen ngeen fa warale yonent yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam mu ne loolu la wootekat bi doon wax de wa ariduhu ala kulli ruhaniin mu ne nangeen ko gaaral tam ci mboolem koo xamante ne rek ruhaani la am na ruux rek na ngeen ko gaaral muhammad sallallahu alayhi wa sallam dégg nga moo xam minal jinni wal insi moo xam ci jinne yi wala ci nit ñi wal malaayikati ak malaaka yi wa tuyuri ak njanaaw yi wal wuhuushi ak rabu àll de wa utuuhu moom muhammad sallallahu alayhi leen ko waaw xalqu aadama de na ko jox jikko aadama alayhi salaam ah yonent bi sallallahu alayhi wa ñu jox ko mbindu aadama waxtuhu xalqa aadama jox leen ko mbind ak aadama aadama nag su ngeen ko xoolee jëmm woon bu gudd gudd gudd waaw waaye jëmm woon boo xam ne itam dafa ñuuloon de moom aadama alayhi salaam aadama mooy ki nga xamante ne moom moo njëkk a nekk xalifa yàlla ci kaw suuf aadama mooy ki nga xamante ne mboolem mbindeef yi rek mboolem doomu aadama yi ñu ngi soqee ko ci moom moo tax hadis bi ne kullukum min aadama wa aadama min turabin wa turabu min al zubdati wa zubdatu min al bahri wal bahru min al haqiqati al muhammadiya sallallahu alayhi wa sallam ah loolu nag bi mu amee ñu ne su ngeen xamul aadama wala yéen mbindeef yëpp yéen a ngi jóge ko ci aadama alayhi salaam waaye aadama moom mu ngi jóge ko ci suuf suuf nag moom mu ngi jóge ko ci puurit puurit moom mu ngi jóge ko ci géej ñu ne géej gi nag moom moom moo jóge ko ci pay yàlla bi yaa ngi dégg pay yàlla boobu nag mooy pay bi nga xamante ne yàlla moo jëloon lépp dajale ko ci benn barab asamaan ak suuf ak mboolem mbindeef yi ñoo daje woon ci benn barab moom la alxuraan di wax ne awalam yarawi alladina kafaru anna samawati wal ardi kaanata ratqan fa fataxnaahuma wa jaalna min almaayi kulli cheyin hayyin xanaa yéen xeefeer yi gisu leen ne asamaan ak suuf dafa dankaloo woon lépp benn dankaloo woon maa ko dajale mu nekk benn barab yàlla mu ne waaye man maa leen tàqale dégg nga bi ma leen tàqalee nag mu ne wa jaal naa minal maa yi ci laa def ndox kullu shay'in hayyin lépp lu dund rek yaa ngi dégg ci laa ko bindee ci ndox de moo tax ñu ne a zubdatu minal bahri maanaam puurit bi mu ngi jóge ko ci géej ba radiyallahu anhu mu ne géej rek moo gis ni yàlla mel mu ne géej rek moo gis melo yàlla bi moo tax géej gi ba mu gisee yàlla ba léegi mënatul dal moo tax foo fekk géej rek mu ngi yëngatu ba mu ne melo yàlla bi mu gis moo tax sallallahu alayhi wa sallam nag jaar na bàyyi xel xam nga lu tax mu jar a bàyyi xel moo jaalan mooy asamaan su fekkee ne yaakaar nga ne ni suuf nekkee jëmmu noonu la asamaan nekkee jëmmu déedéet yaa ngi nax sa bopp asamaan du jëmmu asamaan kenn mënu laa wax ne ni la mel asamaan arab yi dañuy wax ne maa alaaka fa wa samaawun lépp loola féete kaw mooy sa asamaan léegi lan ma asamaan kon te yàlla wax na ne suuf ak asamaan dañoo dankloo woon dañoo nekkoon benn dank loolu jar na bàyyi xel suuf moom xam nañ ne jëmm la waaye asamaan moom du jëmm kon lu dul jëmm naka nga ko mën a dajaleeg loo xamante ne moom jëmm la loolu itam borom xeli ci xalaat ndax yàlla su daan wax kat dafa wax ne faskuru yaa ulil albaab xalaat leen yéen borom xel yi loolu lu jërë bàyyi xel la yàlla mu ne ñoom ñaar nag dañoo taqaloo woon man maa dox seen diggante ma teqali leen bi ma leen teqalee mu ne wa jaal naa minal maay ci laa def ndox nag kullu shay'in hayyin lépp lu dund rek ci laa ko bind ci ndox lépp lu dund rek mu ngi génne ci ndox doomu aadama ci ndox la génnee garab yi ci ndox leen génnee xataa suuf si sax ci ndox la génnee xataa yeneen ak yeneen yëpp dégg nga loolu yëpp ci suuf la génnee de waaw loolu ba mu amee nag ah ñu ne kon na malaake jël yonent bi sallallahu alayhi wa ñu jox ko jikko aadama ana kan mooy adama boo xoolee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa jikko jikko aadama ci njëlbeenu islam njëlbeenu islam ca makka amul woon sharia muhammadiya njëlbeenu islam ca makka jullit ñi daanañ naan sàngara njëlbeenu islaam ca makka amul woon woor njëlbeenu islam ca makka amul woon génne azaka njëlbeenu islaam amul woon dara yaa ngi dégg ca makka de loolu yëpp yonent bi sallallahu alayhi mu ngi ko doon jàngale lan moo tax mu ko doon jàngale parce que njëlbeenam mooy jikkoog aadama alayhi salaam wala mbind aadama bi nga xamante ne nekkoon na ci moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam woon joo xam guddut gàttut waaye mbooloo mum nekk rek moom la ñuy seen yonentu jëmm joo xam ne ku mës a xool jëmm bi rek ku mës a xool tënk loxo mi rek wax na ne góor gu mat a ngi nii yonentu jëmm la joo xam ne mu ngi taaru taar boo xam ne fu mu mës a taxaw rek àdduna bi yëpp caalit kenn dootul mën a téye sa bopp de rawatina jigéen ñi daan nañ caalit ci moom sallallahu alayhi wa sallam yonentu ah, daan na wax Anas nu Malik mu ne ko xanaa xamoo man yàlla daf maa jox doole ñeenti góor benn guddi rek man naa ci ànd ak samay soxna yëpp sallallahu alayhi wa loolu yëpp su ko yàlla mayee loolu dafa am lu mu jàngale ci yonentam yàlla de yonentam yàlla yàlla daf koy may doole boo xam ne wala xutbu zamaan yàlla daf koy may doole boo xamante ne ñetti téeméeri waxambaane ak juróom benn fukk waxambaane ñoo xamante ne boo dajaloon ñoom ñëpp seen doole moom mooy doole moom mooy tolloog doole xutbu zamaan waaye rawatina nag loo xam ne nag yonentam yàlla la moom mooy xalifa yàlla ci ko suuf kon yonentu doole bi mu amoon dëgg-dëgg wane ko woon sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñu ne utuhu xalqa aadam jox leen ko mbindu aadama ak lan maarifatu shiisa na ngeen ko jox maarifa shiisa shiisa yonentu la woon boo xam ne yàlla daf ko mayoon mu am xam-xamu maarifa de yàlla daf ko mayoon aa ah, muy dund yàlla dund yàlla boo xamante ne mboole maqaamaat yoo xamante ne aadama junjoon na ko day gis ne ci sa moom bi mu ñëwee leeral na ko jaamu yàlla de sallallahu alayhi kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam itam loolu la ko yàlla may maarifaay ci sa la ko yàlla dénk moo tax daan na wax ne maa ngi leen di leen talu maa ngi leen di wax ne képp ko xamante ne yaakaar nga ne yaa ma gën a xam yàlla yaa ngi nag sa bopp xam naa loo Ah, kenn ku nekk ci yéen xamoo loolu de sallallahu alayhi wa sallam loolu yëpp ah, xaal yam daan dund moo sababoon loolu ñenn ñi dañ ko daan ree ci buy dund yenn yi wala muy jëf yenn yi dégg nga waaye mu won leen leneen su ngeen yaakaaree ne lii may def ci sama bakkan laa ko teg wala lii may def ci réer laa ko teg dëgg-dëgg réeree ngeen mbir man yàlla xamal na ma loo xam ne ah ah kenn àggut de dégg nga sallallahu alayhi wa mu walbatiku naan leen xanaa xamu leen man kenn xamut ma ku dul sama borom laa yaarifu ni ahadun xayru rabbi sallallahu alayhi mu tegaat ci ne wa shajaatu nuuhin mu ne muhammad jox leen ko njàmbaar ak nuuhin yonenti yàlla nuuhin ku jàmbaare woon la woon yonenti yàlla nuuhin bu daan génn ci mbokkam yi mu mu wax ne ah, yéen sama mbokk yi wala mu wax yàlla ne ko inni daawtu qawmiya leelan wa naharan walam yazidhum duaya illa firaran wa inni kullama daawtuhum li taxfira lahum jaalu asaabiahum fi adanihim wastaxsaw siyaabahum wa asarru wastakbaru istikbaran nuhin mu ne yàlla man daal sama mbokk yi woo naa leen inni daawtu qawmi laylan wa naharan sama mbokk yi woo naa leen guddi woo naa leen bëccëg waaye falam yazidhum duaya illa firaran sama woote gi yokkul leen dara lu daw waxtu ma wootee rek nga gis ñu commencé di ma daw loolu am na ci maqaama yaa ngi dégg am na muqaddam boo xam ne dina woote ba sonn waaye kenn du ko wuy si maqaama nuhin la yor de même mbokk mi sax dégg nga duñ ko wuy si wala ñenn ci mbokk mi sax dina ko weddi weddi gu tar yaa ngi dégg waaye nag xam ne rek yàlla dénk na ko sujaatu nuhin su boobaa mu noppal boppam de dégg nga loolu ba mu amee mbokk yi nuhin ñu daal di sotoo nuhin ñu jàpp ko dóor ko dóor dóor dóor bam mu xam ñu daal ko sànni ci biir ñax mi bañ ko sànni ci biir ñax mi rek nuhin xamatul nu muy def bi nga xamee ne dem na nag ba dekki yaa ngi dégg wala ba ximmaliku ci la wax yow yàlla nag ah mbir jot na léegi nag laa tazar ala al ard min al kafirina dayaaran innaka in tazarhum yudullu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafaran sallallahu yow yàlla xéeféeri nag bu fi bàyyi ñëpp boo leen bàyyi ci kaw suuf non seulement dinañ la weddi dootuñ la gëmati waaye mboolem koo xamante ne jotoon na laa gëm dinañ ko détourné ba dootu la gëmati de sallallahu alayhi wa sallam kon gis nga fii la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak yonent yi yonent bi sallallahu alayhi moom ba ko mi mbugalee ñu boole ko ak ay xaj ñu sànni ko ay xeer yàlla dafa yónni benn malaaka malaaka yi nga xamante ne ñoom ñoo yore montagne yi yàlla ne ko yow malaaka bi demal ne Muhammad su fekkee ne dafa bëggu montagne bi tiim taayif ma wàccee ko ci seen ko ci waa taayif ñoom ñëpp ñu xalaku yaa ngi dégg na ma ko wax rek ma yebal malaaka yi ñu daal di wàcce montagne seen kaw yaa ngi dégg baay radiyallahu anhu mu ne yonent bi waxuma sax ne nanguwut yàlla wàccee montagne bi waaye daf leen jéggalu ne yow yàlla jéggal leen ndax dañoo xamut amaan na itam am na ñoo xamante ne ñu ngi seen digg yi jamono dinañ ñëw dinañ génne te suñ génnee dinañ la dinañ la gëm xoolal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak gis-gis bu sori boobu mu am waaye su fekkoon ne sama jaar yi nga xam ne amoo doole te mettital nañ la su boobaa yow yaa nge bugg la xettali yaa ngi bugg la xeexle su boobaa da ngay wax ne yow yàlla këppal rek yow fi mu këpp comme ni ko nuhin waxee rek waaye foofu na nga xamee degré wali yàlla yi yaa ngi dégg moo tax Baay radiyallahu anhu doon na ne jikko boobu noonu ci yonent bi sallallahu alayhi wa ba ba ba nga xamante ne lor yi commencé naa tar lan la dafa bind lettre mu ne yéen samay taalibe bu leen di fayu suñ leen di dóor yéen samay taalibe bu suñ leen di lor na ngeen muñ ndax ay muñaakoon ngeen yaa ngi dégg radiyallahu anhu jikko yooyu nga xam ne mu ngi ko daan jàngale ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soo xoolee ci yonentu sallallahu alayhi wa sallam léppam rek moom mooy jëmmi Mawlana Cheikh o uhibbu hatta raani kuntu wa rabbi lam yaxluq zamanan wala makanan sallallahu alayhi mu ne nañ ko jox njàmbaar ak nuhin nuhin lum jàmbaare jàmbaare bi mbugal mi méttee ñaan na yàlla bul bàyyi kenn nanga nga xalak àddina bi yàlla ne yow suuf génneel ndox mi nekk ci yow yow asamaan génneel ndox mi nekk ci yow ndoxu asamaan ak ndoxu suuf daje ci la àddina bi yëpp xalku ba des ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon ci gaalam gi de ñi nekkoon ci gaalam gi ñoom ñoo sosaat àddina loolu moo tax noohin ñu tudde ko aadama saani ginnaaw loolu ñu yow muhammad nañ la jox xullatu ibrahim mooy xaritoo ibrahim ibrahim xaritoo wuloon ak kenn ku dul yàlla subhanahu wa taala ñu ne xaritoo bi nga xam ne ibrahima xaritoo woon na ko ak ak yàlla subhanahu wa taala jox leen ko yàlla mu sallallahu alayhi moo tax ñu ne wa xullatu ibrahim ak xaritoog ibrahima gi jox leen ko yonent bi yooyu yëpp nga xam ne yonent yi amoon nañ ko da nga gis benn par benn lañ ko commencé di ko jox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax yàlla dem ba yàgg naan ko way naka la ala xuluqin azimin yow daal yaa ngi ci kaw jikko yu tedd yi de sallallahu alayhi wa sallam bi loolu amee mu am xullatu ibrahim lan mooy xullatu moolaa ceerno hasan dem firil nañu ko ceerno radiyallahu anhu mu ne soxbatu ak xillatu bokkut mu ne soxbatu boo ko xamut mooy àndandoo lay firi yaa ngi dégg waaye xillatu moom moo firi xarit mu ne ñaar ñu ñu bokkuñ de xarit mooy lan mooy li soqe koo ci barab nga xam ne xaree nañ ko ci barab mu jóge ko foofu feeñ mu ne loolu mooy xarit mu ne waaye sohbatu nag mooy àndoo kooku jógewu ci kii kii jógewu ko ci kii loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa doon wax ne wala taxastu xalilan la la la taxastu ababakrin xalilan su fekkoon ne maa ngi tànn xarit dinaa tànn ababakrin xarit waaye walakin naw eh, saahibun yaa ngi dégg Aboubacar daal sama àndandoo rek la duur sama xarit te loolu la yàlla seede ci alquran dégg nga saani isnayni iz huma fil ghaari iz yaqulu li saahibi la tazan inna allaha maana li saahibi la waxoon àndandoom bi de kon li yonentu sallallahu alayhi wa sallam wax ci àqu Aboubacarin waaw loolu lay jàngale loolu na nga xam ne nubuwa ak wilaya ndeke duñ ay xarit waaye ay àndandoo lañ àndandoo yoo xamante ne nag àndandoo yu yàgg lañ moo tax bàyyi ne la amri tafajjara min bahri nu safiya sallallahu alaihi wasallam ha ibrahima nag moom lu tax mu nekk xarit moom dañ koo toppaloo dañoo toppaloo yon bi sallallahu alaihi wasallam ibrahima ibrahima lu tax mu nekk xarit wa ma kaana min al mushrikin moom góorgóorlu woon na ba dellu ci boromam moom ibrahima alayhi ibrahima salaam lan moo tax mu nekk xarit demoon na ba aw fi suufiyanke di aw demoon na ba aw fi góor ñëpp doon aw mu ne dafay dellu ci boromam uhaajiru ilallah loolu la waxoon maa ngi gàddaa jëm sama borom loolu yëpp lan moo ko sababoon ngir delluwaat ci xaqiqatu cosaanam ba fa delloo ah ci la waxee ne wajjahtu wajhiya lilladi fatara samawati wal ardi wa ma ana min al sama jëmm ji jàkkaarloo naak wala sama kanam gi jàkkaarloo naag li nga xamante ne moo amal asamaan ak suuf mu ne léegi man bokkatuma ci ñi bokkaale yàlla alayhi salaam kon kenn ku nekk rek war nga jàngate ci loolu lan moo sabab loolu kaana siddiqan nabiyan a ibrahima alayhi salaam moom itam nabi la woon waaye siddiqi wu la woon siddiqi ci lan ci mooy koo xam ne mu ngi jokkog pay yàlla bi waaye dara doxut seen diggante loolu mooy xarit xarit daal mooy koo xam ne doo tàqale koog moom te doo mës a tàqale moom loolu mooy diggante Ibrahima ak yàlla subhanahu wa taala ginnaaw xullatu Ibrahim malaaka yi ñu ne waat wa lisaana Ismail jox leen Muhammad làmmiñu Ismail Ismail yàlla daf ko mayoon mu am fasaxatu su waxaan làmmiñ bi dafa set wecc ah loolu yëpp nag soo ko xoolee da ngay fekk mu nekk ci jikko sufiyanke yi yàlla dafa wax ci hadisul qudsi yi <coughs> laa yazaalu abdi yataqarrabu ilayya bi nawaafilil xayri xataa ida ahbabtuhu kuntu sam'uhu wa basaruhu wa lisaanuhu wa yaddihi wa rijlayhi ah lii la yàlla yàlla bi mu demee nag ba nekk làmmiñu Ismaayil lépp lum mu wax rek nit ñi dañ koy dégg mu wuuteeg Moussa alayhi salaam Moussa làmmiñ bi setul woon moo tax mu naan rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani waxlul yow yàlla dindil uqdatan pas-pas bi nga xamante ne min lisaani mu ngi nekk ci sama làmmiñ foofu la Ismaayil wuutee ak Moussa Moussa moom dañoo téye woon làmmiñ bi waaye ismaila moom dañoo fecci woon làmmiñ bi ku yàlla mayoon la fasaatu de alayhi salaam ak lan mu ne warada ishaqa ak ngërma de ishaqa daal yonentu loon boo xamante ne yàlla daf koo mayoon mu gërëm lépp lu ko dikkal rek daf koo gërëmoon moom ishaqa ishaqa nag moom meññi yaqub ishaqa moomu ah mooy ki nga xamante ne dafa mus a wax benn doomam ne ko soo ma nappalee jën nga indil ma ko ma lekk ba suur dama xiif dinaa la ñaanal ñaan boo xam ne mooy ña ñaanu maami Ibrahima alayhi salaam lépp loo jur rek dina nekk yonentab yàlla am koo xamante ne nag dégg na taarix boobu noonu mu daw dem wala dégg na wax jooju noonu doom baayam doom baayam la mu dégg wax jooju noonu yaay ji ne ko dawal nga wuti lum lekk lu sa baay lekk mu daw wuti loolu nag ba ko wuti jee mu indi njëkkantu nag jox baayam baay ji yaakaar ne doom ji beneen doom bi moom moo ko indi kan moo indi woon loolu mooy yaqub moom moo ko indi woon yaqub ba mu ko indee mu njëkk a jox isxaaqa isxaaqa lekk ba suur mu ñaanal ko ne ko ñaanal naa la di nga nekk yonentab yàlla di nga donn samaam maam Ibrahima alayhi salaam di nga donn xam-xam itam loolu mooy sabab léegi nag magam bi bi mu de bi ko déggee mu jóge koo géej mu ñibbisi bi mu ñibbisee mu jël euh, kii yim jàppoon jën yim jàppoon mu lakk ko bam baax mu indil ko baayam Isaaqa Isaaqa ne ko yow am na ku jiitu am na kolo fi njëkk booba Isaaqa dem na ba magee bëti leeratut mu ne ko yow am na ku la jiitu ki la jiitu daal jox na man lekk naa ba suur de te ñaanal naa ko de te ñaan bi yow laa waxoon yow laa koy ñaanal. ne ko ñaan boobu ñaan naa ko ba noppi de te ki ma ko ñaanal moom lay dal léegi nag doom baay ji di gëstu di gëstu ba xam kan la ñu ne ko Yaaqub moo ko def léegi nag mu tëkku Yaaqub ne ko dama lay rey. yow yaa may Yuusufu dinaa la rey bi mu jógee pour rey Yaaqub Yaaqub mu ngi amoon ay mbokk nijaayam mu ngi dëkkoon ca Irak ci la ko yaayam wax na ko dawal dem say nijaay fii boo fi desee rek kii na la rey te kon di nga ñàkk ci la daw dem moom Yaaqub fi mu njëkk a fanaan tey moom mooy fi Baytul Maqdis nekk Quds bi fi mu nekk tey keroog ba Yaaqub génnee di daw foofu la njëkk a fanaan foofu nag la ko malaakee wone moo tax moom bokk na ci yonantu wala moom moo yonantu ba nga xam ne moo njëkk a gis baytul maqdis de waaye keroog guddi keroog itam ci lañ ko tuddee us maanaam iil moom yaqub yaqub malaaka yi ñoo ko tuddee iil yaa ngi dégg moo tax ñu tuddee usratu iil usratu de israil boo ko déggee rek mooy ba mooy yaaqub ak doomam mooy fukki doomu yaaqub yeeg benn ak yaaqub alayhi salaam loolu mooy usratu il kon yaaqub yonentu boo xamante ne ah, wala ishaq kon yonentu la woon boo xamante ne moom ku gërëmoon la woo maanaam da ku gërëmaan la da daan gërëm lépp loo ko dafa dafay gaaw gërëm alayhi salaam ak lan wa fasaatu saalih fasaa saalih la ko yàlla dénkoon moo tax képp koo gis rek mu fasaa su waxtaanee ak bi yëpp dégg ko dénk nañ ko maqama saalihu saalihu nag mooy ki ñëwoon ci mbokka mi mbokka mi ne ko ñun daal duñ la gëm feek montagne ngay gis nii xaroo ko ba nga génne ci gilem su fekk daal xar nga ko ba génne ci gëlëm ñu daal di lay gëm bi loolu amee moom itam mu taxaw jàkkaarloog montagne bi di ñaan di ñaan di ñaan ba montagne bi mu ne ñu bi jur na gëlëm montagne bi jur na gëlëm montagne bi jur na gëlëm léegi nag gëlëm googu ñu ne gëlëm ak yàlla la de moom nga dégg alquran naan naaqatallaahi wa suqyaaha fa kazabu fa aqaruha fa damdama alayhim rabbuhum bi dambihim fa sawaaha wala yaqaafuuna uqbaaha naax naaqatallaay mooy gëlëm ak yàlla bi amul kenn ci yéen koo xam ne mus naa gis yàlla war gëlëm kon gëlëm googu lan mooy sabab ñu naan naaqatallaay gëlëm ak yàlla bi ah loolu suufiyanke yi rek ñoom ñoo ko mën a tekki de ñoom ñoo xam lan mooy gëlëm ak yàlla ba léegi gëlëm gi yàlla doon war soo fa demee nga fekk moom la yàlla di war de. te gëlëm googu noonu ci biir montagne lay génnee de montagne boobu nag jar na bàyyi xel. yàlla waxtu mu la waxee montagne rek am na lu mu la bëgg a jàngal yaa ngi dégg wax yi ah montagne yi dañoo am ay maraati ci suuf dafa am lu ñu tuddee al ahqaaf ahqaaf moom la français yi naan dune les dunes boo demee ci côté Mauritanie foofu la ëppee. loolu beeñ moo koy def bu ngelaw li amee rek dangay gis beeñ bi dafay nekk ay dafay def ay juñ am na loo xamante ne moom lañ tuddee jibaal jibaal moom mooy montagne yaa ngi dégg am na loo xam ne itam moom lañ tuddee colline colline moom la arab tuddee rawaasi ñetti montagne yi benn bu nekk bokk ak sa morom te benn bu nekk maqaam la rek Yusuf yaa de ah noonu la demee waaye lu mën a xew Saalix yàlla daf ko mayoon fasaxatu su waxee daal ñëpp dégg dégg alayhi salaam malaaka yi ñu ne fasaxaat Saalixu bi nañ ko jox Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak lan hikmatu luutin yonent yàlla luutin borom hikma la bu yàlla mayoon hikma hikmatu nag yàlla wax na ci alquran aman utiyal hikmata faqad utiya xayran kasiran képp koo xam ne jox nañ la xam-xamu hikma jox na la jiwu bu gën de xam-xamu hikma nag mooy xam-xam boo xam ne mu ngi jóge ko ci yàlla subhanahu wa taala wàcc ci jaamam xam-xamu hikma mooy xam-xam bi nga xam ne jaam bi waxtu nekk rek bu ko waxee ci yàlla la jóge ko direct doomu aadama dinañ dem ba jàkkaarloog la mu wax te dara mënu koo dindi de loolu mooy xam-xam hikma loolu nag kenn noo góorgóorloo ci yàlla rek noonu la ko yàlla di mayee yal na yàlla yéegin fii maraatib <coughs> ah mu ne ginnaaw loolu nañ ko jox Bushra maanaam mbégte Yaaqub Yaaqub dafa béggoon lan moo taxoon mu bég ndax doomu mi. Eh, dañoo jote woon ak Youssouf Youssouf dafa géntoon mu ne dafa gént jant bi weer wi ak fukki biddiw yi ak benn ñu ñëw di ko sujootal après mu ñëw nettali ko bàyyi bàyyi yi ne ko sa gént gi bu ko wax kenn na nga ko noppee waaw ñu daal di ko sànni ci biir teen bi de biñ ko sànni ci biir teen ñu daal di rey benn tille ñu jël deret ji taqal ko ci mbubu yusuf bi de biñ ko taqalee ci mbubb bi ba mu tax deret waaw ñu ko nag yaquba alayhi salaam bañ ba bët yi eh, eh, eh, ba yaqub gisatu ndax jooy mu am lu lool ndax waxoon leen sama doom bi bu ko dara jot bu ko tilli jot ñu fexe ba tilli lekk ko loolu xaw ko metti lool moo taxoon mu jooy ba mu ñàkk ba di nag waaye bañ sànne Yusuf alayhi salaam ci teen bi booba am na ñoo xamante ne tukkikat lañ ñu ngi romb ba ñu rombee rek te teen ba doon doon ngir nàndal seen bopp waaw nandal itam seen jur yi nga xam ne ñoom la ñu àndal ñuy root di root di bi mujj rek mu mel ni yàlla dafa xamal yonti yàlla yusuf alayhi salaam ne paak bi mu mujj rek mu langaamu ci gaa ci paak bi ñu xëcc xëcc mbir mi diis ñu ne ah paak bi rek am na lu ne de ñu xëcc rek di xëcc rek di xëcc rek ba mu jege si ñu ne ndekki lii xale la nañ ko sobe ñu daal di ko génnee bañ ko génnee ñu daal di jël xale bi mooy yusuf alayhi salaam ñu dem jaay ko jaayee ndeke ki ko jaay mooy buur bi de buur bi ba mu ko jëndee mu jël ko ndeke soxnaam amul woon doom mu jël ko nag dénk ko soxnaam soxna si daal di ko yar mu yar ko ba dem bi jamono soxna si cofee eh, dab ko ci Yusuf mu bëgg Yusuf mbëggeel goo xam ne jéggi na dayo moom nga dégg alxuraan di wax ne xat shagafaha xubban moom soxnaay soxna soxna buur bi sonal mënatu téye boppam benn bis nag mu invité Yusuf alayhi salaam ci biir néegam mu ne ko man rek ak yow ñun ñoo fi ne waaw léegi daal ah na nga ak man nga mucc. dinaa yuuxu ba àdduna bi yëpp xam ne ne bëggoon nga maa waaye man ma bañ léegi nag gis nga li alquran di wax ne inna kayda kunna azimun pexe jigéen dafa rëy moo tax xalifa Babacar su daan fii aaya bi dafay wax ne inna kayda kumba azimun mu ne pexem kumba dafa rëy de du inna kayda kunna waaye inna kayda kumba ah mbir am Yusuf naka lay def ndax mu ngi ànd ak taar taar bu jéggi dayoo te Youssouf tur la ci turu yàlla yi de Youssouf allah wala jàpp Youssouf 396 la 396 boo ko divisé par boo ko divisé par 66 dina la jox 3 la xaw ma 4 moom la lay jox. nga gis ne kon Youssouf martaba la ci martaba yàlla yi di lay xamal martaba la ci martaba yàlla yi yonent yàlla Yaquba alayhi salaam amoon na benn garab këram. garab googu képp ku mos a judd ci doomam yi garab gi dafay génnee ba xaas ba mu des Yusuf Yusuf ba mu juddoo. garab gi génnewul benn bànqaas ah doomu baay bi ñu naan kii du du du kii doomu njaalo la lu tax muy doomu njaalo parce que garab gi ku ma a judd rek te yaa ko a jur garab gi dafay génne bànqaas waaye Yusuf rek moom moo juddu garab gi génnewul bànqaas kon kii suñ baay jurul ko de xamul fu ko yaa jëlee waaye eh, eh, kii garab gi jurul ko wala yaa ko juru ko boobu nag lay waroon a xam ne garab gi peppam bi génn na lu mën a xew. garab bu demee ba màgg wala ba sës ci màggaay dafay meññ la muy génnee mooy la nga xamante ne moom moo meññ garab gi mooy li sus garab gi de te loolu mooy yaqub kon mu jàngala nubuwa ba nekkoon ci isxaaqa dëgg-dëgg moom mooy li feeñ ci yaqub kon la isxaaqa ñaanaloon na ci yaqub de alayhi salaam yaqub itam ñaanal ko doomam mooy yusuf loolu feeñaat ci moom yusuf moomu jaaxle xamul naka lay def a ah, ah, léegi nag soxnaa buur bi yuuxu rek ñu jàpp ko génne yu jàpp Yusuf ñu jàpp tëj lan moo xew xew mu ne kii daal moo bëggoon a sàkk ah sàkku jabaru buur waaw moom moo bëggoon a léegi nag nu ñuy xew ah xanaa ma bañ ma bañ a moom loolu moo tax rek ma yuuxu pour nit ñi ñëw àtt ñu Yusuf na demewul noonu de. soxnaa buur moomu bëggoon a sàkku loolu nag waa dëkk bi yëpp dégg ko ba mu ko déggee mu metti leen gis nga pexe jigéen li ñu wax ne dafa rëy ñenn ñi naan jigéen ni xel mi ni weenam yi sëggee la xel mi sëggee man leen déedéet jigéen xelam sa gudde ñoo gën a rëy xel ci li yàlla bind ndax ñoom rek la yàlla tàgg ne borom xel mu rëy lañ inna kaydakunna azimun seen pexe dafa rëy xam nga ne ko amul xel amoo pexe de man sa pexe yóbbu ko nag ah, ah Zalixa jigéenu Zalixa yi ñoom itam ñu jaaxle Zalixa ne nañ leen woo gàcce gii mënu koo nettali ci benn jigéen nde mënatul génn ci dëkk bi ndax kersa bi mu am ñëpp xam nañ ne moom moo doon sàkku xale bu jigéen bi xale bu góor bi mooy Yusuf alayhi salaam mu ne nañ woo mboolem waa dëkk bi xale yu jigéen yi ñoom ñëpp ñu ñëw mooy jël ay paanu soble jox xol leen soble waaye mu wóolu Yusuf ne nañ génne Yusuf ci kaso bi ñu indi ko ci digg jigéen ñi mu aw fa ah, bi nga xamante ne Yusuf awana nañ ko ci digg jigéen ñi jigéen ñi fàtte soble yeen doon ko di dagg seen loxo yi de di dagg rek di dagg rek ndax taaru Yusuf alayhi salaam bàyyi bu ko daan mu ne su fekkee ne jigéenu Zalixa yi dañoo gis yonent yàlla Yusuf alayhi salaam ah ñu tiit wala ñu jaaxle wala ñu am mbëggeel bay dagg seen loxo yi mu ne suñu gisee yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne kon seen xol yi la ñuy dagg de loxo yi waaye xol yi la ñuy dagg sallallahu alayhi wa sallam bi loolu amee ah Yusuf daal di romb seen kanam rek ñoom itam ñu commencé naan haasha lillah haasha lillah ma haada basharan in haada illa malakun karimun yaa ngi dégg lan mooy nit bii ay eh, ñun yéemu nañ ci nii lii ndax nit la ah nit bi man ci nekk lu dul buur de gis nga jigéen ñi ñoom njëkk gis Yuusuf ne buur lay doon te ndax am Yuusuf nekk na buur de dégg nga alayhi salaam kon jigéen yàlla may na leen basira waxtu wuñ gisee góor goo xam ne am na lu yàlla def ci moom rek da ngay gis ne ñoom dañ koy teel a xàmmee loolu amoon na diggante Abdullahi ak jigéenu arab yi nga xam ne ñu ngi nekkoon ci Makka bañ gisee Abdullahi ne ko man dinaa la jox téeméeri gëléem ngir ma sey ak yow ndax li nga xamante ne seen naa ko ci yow. abdullahi na amal haramu fal mawtu fi kalamin yaqulu zu kamalin def haram dee moom ko gënal bàyyi ma ne ku mat dëgg moom mooy woo wax jooju noonu de bi loolu amee ñoom bam génne moom yusuf ma hadha basharan in hadha illa malakun karimun loolu mooy yusuf alayhi salaam ah yusuf lan moo tax ñu ne mbégte ah, ah, yaqub mbégte yaqub bi ci yusuf la génnee benn bis buur bi daal di ko génnee ci kaso bi biñ ko génnee yàlla def buur bi fal ko mu nekk ministre de l' économie maanaam mboolem économie réew mi yusuf alayhi salaam moo ko yor benn bis nag gars yi bekkoor am na ndax am na koo xam ne géntoon na gis na juróom ñaari eh, nag yu yu xiif na yu lap ñu lekk juróom ñaari dugub ñaari maanaam juróom ñaari gubu dugub ak juróom ñaari dugub eh, gubu dugub yoo xamante ne dañoo lekk juróom ñaari nag yu suur loolu nag bañ koy firi ah yonent Yusuf borom ta'wil de woon yàlla daf koo doon xam-xamu gént mu ne su ngeen xamul loolu mooy lan mooy dina am juróom-ñaari at yoo xam ne juróom-ñaari atu bekkoor lay doon loolu mooy nag yi nga xam ne dañoo suur mu ne waaye ak juróom yoo xamante ne mu ne atu eh, eh, maanaam atu atu naataange lay doon mooy nag yu suur yi waaye juróom-ñaari at yoo xam ne eh, atu bekkoor lay doon mooy nag yi nga xam ne dañoo xiif dañoo lab. mu ne loolu mooy gént gi loolu lay firi buur bi ne ko léegi nag naka la ñuy def mu ne ko xanaa ñu def réserve mooy ñu denc lépp luñ bay ñu jël ci mbay mi ñu xaaj ko lenn li ñu denc ko ca magasin yi bis bu juróom-ñaari at yeneen yi ñëwee nga xam ne dinañ mën a am dund dinañ mën a dund juróom-ñaari at yoo xam ne denc nañ dundam lii la Yuusuf alayhi salaam dénk euh, euh, buur ba buur ba itam nangul ko loolu déggal ko loolu. mu def ko ba ko defee yonent yàlla Yuusufa alayhi salaam yàlla def ay mbokkam ñëw di jënd si eh, dugub di jënd si itam mbele bi leen gisee rek xetu baayam xeñ na ko bi mu leen gisee itam xàmmee na leen xàmmee leen ci deret mu jël mudd mi nga xamante ne moom lañuy ñuy nattee mu dugal ko ci seen biir nattukaay gannaaw ba mu leen nattalee ba noppi ba leen nattalee. ñu yóbbaale mudd bi mu daal di yónnee garde yi mu ne leen dem leen wax ñële sàcc nañ sama mudd bi ah gaa yi dab doomu Yaaqub yi ñoom mu dab leen ne leen yéen yéen a sàcc muddu buur gaa yi ne sàcc ñoo ko waaw ñu ne ko sàcc nañ vérifier seen saag yi bañ vérifier saag yi ñu fekk mudd bi ci seen biir saag yi ñu daal di jàpp doomu Yaaqub yi ñu ñëw biñ leen jàppee. yusuf ne bàyyi leen ma ak ñii ñu jël yusuf tëj ko ci biir nekk moom ak gaay mu ne leen ndax xam ne ngeen ma gaay ne ko déedéet ndax xam ne ngeen ma gaay ne ko déedéet mu leen man maa seen rakk yusuf man ngeen sànni woon ci biir teen bi léegi nag lii moo am man xàmmee naa leen ci yéen xàmmewu leen ma ma bëggoon fexe bañ xamante moo tax ma jël mudd bi seen biir bagages yi ñu jàpp leen sàcc léegi ma dinaa leen bàyyi ngeen dem ngeen dellu waaye su ngeen demee eh, sama chemise bi nga xam ne jëloon ngeen ko ngeen taxal ko deret ngeen nit lii jox ko sama baay mu jooy ba bëtam yi sa sëgg su ngeen demee chemise boobu noonu na ngeen ko muur sama baay su ngeen ko muuree rek bëtam yi dina gisaat moom yonent Yàlla Yaqub alayhi salaam bi loolu amee. ma ah, mag Yuusuf yi delluwaat kër ga bañ delloo ba ñu egsi rek ci biir kër gi rek yonti yàlla yonti yàlla commencé di kontaan ah doom mi ne ko la nga kontaan mu ne leen dangeen maa indil xel may lañ yàlla may lañ ay wali maksuuf lañ gaa yi ne ko yow dafa mel ni sa xel mu demoon ba léegi dinagut ci yaw ana ban Yuusuf ngay wax mu ne wallaahi dëkk ngeen ma akatu Yusuf alayhi salaam ah doom yi ne ko wax nga dëgg Yusuf de gis nañ ko. bañ ko gisee itam. nañu moom daal ndeke mu nga ca kër buur ba de moom moo yore lépp ay buur ba jamono ji toll nii waaye waxoon nañu ne chemise bi nga xamante ne moom lañ indiwaa indiwaatoon waaye ñu indee ko ak deret joo xamante ne deret joo xamante ne du dëgg nañ ko raay sa kanam buñ ko raay sa kanam gi rek di nga gis. ko raay ci kanamam bi ñu jël chemise bi ñu raay ko ci kanamu Yaaqub Yaaqub daal di xoolee bi mu xoolee mu ne leen waxoon naa leen lii ci la Yaaqub jóg mu ànd ak yaayu Yusuf ñu ne dañuy dem seeti Yusuf ñu ànd ak doom yi nga xamante ne fukki doom lañ ak benn mooy fukki doomu Yaaqub ak benn loolu nag secret bu rëy moo ci nekk. soo demee ci xaasiyatu saawi na nga ko fa fekk mooy doom yoo xam ne képp koo xam ne xam nga leen nga def leen ci barab bu du ñàkk lekk mukk daay man dund rek lay am. mbétti moomu nag moo tax ñu ne jël leen bushra yaqub maanaam mbétti yaqub boobu noonu ngeen defal ko ngeen defal ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu itam bëggoon na mbëgg moomu naka la bëggee woon mbëgg moomu mooy keroog bañ ko génnee ñu génne ko Makka ñu dàq ko mu dem Madinatu Munawara donte nag ci ndigalu yàlla la ko defee woon waaye nag ci pexem noonu ci la amee keroog bi Yonent sallallahu alayhi wa sallam Makka mu xeex ba nangu Makka mbokkam yëpp ñëw daal di jàkkaarloo moom ne ko ñu ngi nii ñun ñu seen mbokk soo ñu reyee rey nga say mbokk. waaye suñu jéggalee itam jéggal nga seen bopp léegi daal defal lu la defal lu la neex ci ñun ci la yonent yàlla ci lay yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam wax ne wax naa la sama mbokk Yusuf waxoon izhabu wa antum tulaqa dem leen man daal jéggal naa leen bàyyi naa leen gis nga la nga xamante ne moom la Yusuf jëflante woon ak ay magam ak bàyyam loolu la jëflante loolu la yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam jëflante ay mbokkam moo tax jikko ju nekk rek ma la ñeel ko moo tax jikko yi nga xamante ne mu ko daan yéeg ci maraati bi loolu moo indi asamaan yi nga xam ne moom la doon yéeg moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñu na asamaanu nangam fekk Adama moo fa nekk yéeg na asamaanu nangam Isa ak Yaaya moo fa nekk. yëg na asamaanu nangam boobu Idrissa fa nekk yëg na asamaanu nangam Yusufa fa nekk yëg na asamaanu nangam Haruna fa nekk yëg na asamaanu nangam ba Ibrahima moo fa nekk yaa nu ba asamaani jeex loolu yëpp lu muy jàngale mu ngi jàngale maqaama yonent yi nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam daan na ko yéeg maqaama par maqaama sallallahu alayhi wa sallam moo tax ne jox ko. bushra yaqub maanaam mbégteem yaqub ak lan wa shiddatu Moussa jox leen Muhammad shiddatu Moussa mooy tattat ak Moussa Moussa yàlla daf ko mayoon mu nekk waxambaane boo xam ne yàlla daf ko may doole képp ku Moussa jëflanteel rek su la dóoree nga nga àgg teer te a faatu rey na ñaari nit avant muy génn kër kër kër Firawna kenn ki dañ doon xuloo ak beneen moromam. mu ñëw di leen atte mu jàpp kenn ki ba ma ko rek kooku daanu dee loolu moo ko jaaxaloon mu tiit nag ñu ne ko su la firaaw na déggee wala mu jàpp ne yow daf lay rey bu yeboo nga daw génn fii de loolu moo sababoon Moussa daw génn yaa ngi dégg ca Misra moo tax Moussa borom doole la woon dafa amoon shidda dëgg-dëgg tàntal ak doole dégg nga alayhi salaam ak kan wa sabru ayuba ñu ne defal leen yonti am sallallahu alayhi doole Moussa waaye defal leen ko muñ ak Ayuba itam de Ayuba alayhi salaam yonentu la woon boo xam ne yàlla daf ko mayoon mu muñ muñ goo xamante ne muñ ko jéggi dayoo la yàlla daf ko mayoon mu am alal yàlla daf ko mayoon mu am wërsëg en tant que yonentam waaye mu tey benn bis nattu daf ko nattu bi mooy lan mooy feebar ba mu feebaree feebar bi métti lool ba sax yi di commencé di di génn ci yaramam. léegi nag nit ñi booba ayuba yàlla daf ko mayoon alal daf daan dimbale jaamu yàlla yi lu bare bare ah mu jékki-jékki daal mu gis nit ñi di ko daw dégg nga nit ñi nangootuñ ko sax seeti dem na ba yaramam sax commencé di xeeñ yaa ngi dégg alayhi salaam benn soxnaam rek la dese woon mu jigéen mboolem ña nga xam ne waroon nañ ko rek dañ koo daw loolu nag kenn ku nekk war nga ci jàngat jamono ji soo yoree alal da ngay bëri xarit da ngay bëri ñu lay topp da ngay bëri ñu lay jey da ngay bëri ñu lay tagg da ngay ñu lay maral say tànk lu nekk rek ñu waxal la ko ne yow yaa fi gën yow yaa nangam ak nangam waaye bàyyil xel ayuba alayhi salaam ayuba fa la njëkkee su fekkee ne baa nga xel ayuba mbir mi lum xew-xew wala lum métti métti rek waaw di xam ne ah gars daal dafa am lu ñu soxla ci yow rek waaye du yow lañ soxla de. te loolu ayuba def bi loolu amee ayuba itam soxna si nga xamante ne moom la nekkaloon mu jékki-jékki rek mu génn mu dem wuti li nga xam ne moom la ñuy lekk wuti itam lan lay dimbale ayuba alayhi salaam mu to ab diir moom ayuba gisut soxnaam ci la commencé rek di jàmbat mu ne mbaadu sama soxna si itam. ni ma nit ñi bàyyee moom itam noonu la ma bàyyee waaye wallaay maa ngi wàcc yàlla ne su fi ñëwaatee dinaa ko dóor ak feebaram boobu nag métti métti gëñ googu mu gëñ moom ayuba alayhi salaam ne dina door soxnaam bi waaye bu soxnaam si ñëwaatee soxnaam si nettali ko lan moo nekkoon tànkam waaye yàlla won ko ne ko nag jot ngaa gëñ ba noppi ne da koy dóor faw nga ko rek waaye dama nga wut benn takk ñax nga laxas ko ba mu xaw a dëgër tuuti rek nga dóor ko sa soxna si ngir loolu kaafaar la sa waat nga waat moo tax nit waxtu woy waat ne sama soxna dinaa ko def nangam ak nangam na nga bàyyi xel loolu yow war nga koo def de moo xam da nga koy jëndal dara wala da nga koy may dara ah loolu na nga ci bàyyi xel bu baax ndax yu yu yu ah ayuba moo la koy jàngal waaye mu jëm ba jëmmi jamono mbir mi tar gën a métti ci ayuba alayhi salaam mu jekki-jekki daal mu gis sax yaa ngi koy watal ba sax yi commencé àgg ci biir xol bi mu ne ah yàlla yow anni massani yadurra wa anta a rahimin gis nga ayuba ni mu amee ni mu amee yar waxul na yow yàlla anni massani yadurra isfini yow yàlla lor dab na ma wéral ma déedéet waxul wéral ma de dafa wax ne yow yàlla yow yaay kii yërëm képp ku yërëm moo tax bàyyi mu ne ñaan dañ koy xam mu ne ku xamut ñaan mun ngaa ñaan nga yaakaar ne da ngay ñaan fekk yaa ngi ñàkkee teggin koy bi yal na yàlla musal ci loolu noonu moo tax rabbi arini rabbi anni massaniya durru wa anta arhamar rahimin lan moo ci toog fastajabnaa lahu man yàlla maa ko nangul moo tax ñenn ñi ñu ne itam ismu la azam moo dëgg-dëgg moo mooy arhamar rahimin ndax ci la ayuba ñaanee te bam ci ñaanee yàlla yàlla delluwu ko ñaan bee daf koo daf koo defal ci direct kon ñu bàyyi xel ci loolu noonu ay jamono tur yàlla bi ngay ñaanee yàlla nangu la ci saas ci tur boobu noonu tur boobu mooy sa ismu la laazam yow bu ko bàyyi wali yàlla yu bëri wala yu bëri ñaan nañ ci ay tur yàlla yonent yàlla Suleymaan alayhi salaam ñaan na ci tur yàlla rabbi habli mulkan laa yambaghi li ahadin min baadi innaka antal wahaabu kon Souleymane ci tur wahaabu ci la ñaane yàlla yàlla may ko nguur kon moom ismail azam moom mooy nguur am na keneen koo xam ne moom mu ngi ñaane ci laa ilaha illa anta mooy yunus alayhi salaam laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azalimin fa nabasnaa fi laraayi moom itam ba ma xeeloon rek ci la ko jël bi goqi moom itam laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azalimin ismail azamam loolu nag Baay radiyallahu anhu wax na ne mboolem tur yooyu noonu ñu ngi jëlee seen madad ci ismul azam loolu moo tax tur boo ci ñaanee rek tur yëpp ismul azam lañ boo ci ñaanee rek yàlla nangul la tur boobu noonu ismul azam la ci yow. moo tax ayuba mu ñaanee ci arhamar rahimin rabbi anni massaniya durra wa anta arhamar rahimin yow yàlla daal loraange dal na ma yow nag yow yaa kii yërëm ñi yërëm ñi de. lan moo sababoon loolu parce que sax yi dem nañ ba àgg ci xol bi mu ne yàlla xol bi daal dëgg-dëgg suma ma sañoon sax yi duñ fa àgg parce que moom laa dese lu lay gëm waxtu wuñ ko lekkee nag dégg nga dootum amati ngëmee kaay kon yow yàlla eh, eh, sauver ma sama sax sama sama eh, xol bii ba sax buñ ko lekk de lii moo tax yàlla daal di ko wéral ci la ko yàlla waxee wekkal suuf si rek su boobaa rek day gis ndox dina génn ndox su génnee nga jël ci ndox moomu noonu nga sangu ci nga naan ci lii moo indi saafara kon ñi wax ne saafara bi daa la dëgg-dëgg dellu leen ci ci yonent yàlla ayuba alayhi salaam bi meqee suuf si rek ndox daa ndox dafa daal di génn bam naa ne ci ndox moomu noonu ci la wéree bam naa ne ci ndox moom noonu mu sangu ci ci la mbooleem feebar bi dañ alayhi salaam loolu nag am na fii ci côté Foundiougne Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu ñëw na fa ci benn dëkk ay séeréer a fa nekkoon séeréer yoo xam ne gëmuñ dara waaye liñ tuddee vers gi Guinée daf leen sonal mu leen di def ay góom seen yi. seen teenu dëkk bi itam daawut am ndox dafay ngecc rek bi fa bàyyi ñëwee di leen woo ci niinu islam ñu ne ko ñun daal duñ la gëm lu dul suñu teen bii da ñoo ñaanal mu fees ak ndox ba noppi itam feebar yii ñu feebar nii nga ñaanal ci yàlla ñu wér rek su boobaa ñun ñu mën laa gëm ñu tuub dugg ci islam bàyyi ne leen waa baax na dem leen ngeen dootal ma paanu la ñu dem ndootu baana ndox te teen ba indil ah, ah, ah, ah biñ koy lelee bàyyi raxas ci teen ba mu raxas ci ci ndox mi ñaan ci ne dem leen ngeen jox commencé wëgg ca teen ba ku ci naan rek feer de gi ne bi nekkoon ci sa yaram bi daal di génn ñoom ñëpp ba seen yaram yi wér islam ci loxo Cheikh Ibrahim bàyyi ne leen bis ni que tey mën ak yéen ñoo yem ci islam loolu mu nga ca côté Ndorong Ndorong nga xam ne bàyyi mboolem jikko yonent bi sallallahu alayhi wa moom moom itam moo tax suufi su fekkente ne dugg nga ci yoon wi yoon wi dafa ànd ak dafa ànd nattu dafa ànd fitna ahasiba annaasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum laa yuftanuun xanaa da ne di wax ne man gëm ngeen ma man yàlla ba duma leen fitnaal seen ngëm gi dëgg la wala doo dëgg loolu moo indi suufi yi dëgg-dëgg war ngaa gëm yàlla te nga muñ lu mbir mi tartar lu nattu yi tartar na nga muñ de te loolu la bàyyi wax ne fa innakum fa innakum saburuuna na ngeen de. radiyallahu anhu ginnaaw loolu ñu ne wa taatu Yunus topp ak Yunus itam jox leen ko Muhammad gis nga indiwaat nañ jikko toppee toppee du ku nekk moo ko mën de Yunus yàlla daf ko yónni ci ay mbokkam ba mu demee ci mbokkam yi mu woo leen mbokk yi faale wuñ ko guddeem yëpp mu woo leen faale wuñ ko bëccëg mi itam mu woo leen faale wuñ ko mboolem jëflante rek jëflante na ko mbokk yi naxanteeg ñoom. ñu faale wu mbokk yi faale wuñ ko rek léegi nag mu mere leen mu ne day génn génn dëkk bi gis nga wootekat buñ gaaw a génn yow kay dañ laa wooteloo rek wooteel te nga maandu dégg nga wala nga bàyyi sa bopp yi sa borom mu nekk di woote di woote ba sonn kenn faale wu ko mu ne day génn dëkk bi daal mu daal di génn ba muy génn nag mu jël gaal ba mu jëlee gaal ñu dem ba ci digg géej gi rek géej yi gànnaxee. moo di commencé jaaxle ne géej gi su defaat nii xam leen na am na ku ñu rax ci biir gaal gi war leen gaal kan moo ñu rax bañ waree rek ñu fekk foofu Yunus alayhi salaam ñu ne Yunus yow daal yow yow yow lañ kànnuwul fii léegi nag génn ci gaal gi ñu jàppoo ko rek parkaat ko mbee laa mbee rek sànni rek sànni ci biir géej gi bañ koy sànniwaan rek. am na requin boo xam ne moom la tombeel fekk requin baa ngi ubbi gémmiñ gi rek moom mu daal di tëmba ci biir biir requin bi moom requin bi wan na ko benn yoon nag dugg ci biir géej gi bàyyi radiyallahu anhu am na fu mu daan tàgg yonent yi bi mu ñëwee ba foofu mu naan wa ayna alladi masjidu huutun a ki nga xamante ne jàkkaam ji moo nekkoon jën ba kooku mooy yunus alayhi salaam Yunus moomu nag ku mënoon topp la ku mënoon jaamu la moo tax ñu ne Muhammad toppeeg Yunus gi nañ ko def ci Muhammad Yunus bëri na ñoo xamante ne su leen jën woon noonu ba mooy tur ñu dee rek waaye moom jën bi lu mu ko wan wan na ak lu mu tàng tàng tàng ci biir jën bi moom mu ngi sàmbal yàlla ci biir jën de mu ngi tudd yàlla ci biir jën bi mu ngi wax ne laa ilaaha illa i subhaanaka innii kuntu mina zaalimiin moo tax aaya boobu. génne de mbir mi lum rëy rëy rëy yàlla dina la ci génne de te loolu ñu ngi ko amee ci barke Yunus alayhi salaam moo tax nañ topp Yunus ak kan wa jihaada Yusha Yusha ibnu Nun moom moo àndoon ak Moussa alayhi salaam Moussa dafa àndoon ak Yusha ak ñoom Kaalu dégg nga ñooñu ay taalibeem la ñu woon mu xeex ba yàlla des Moussa boobu noonu moom Yusha Yusha ibnu Nun soo ko xamul mooy ki nga xamante ne moo àndoon ak yonent yàlla Moussa alayhi salaam ci biir jën ko wax mu ne ko man foofu laa doon wër foofu la sama borom waxoon ne foofu la ñu dajee xudar xudar mooy ki nga xam ne mooy ki yàlla doon wax ne wa allamnaahu min ladunnaa ilman man maa ko xamal direct xam-xam boo xam ne mu ngi tukkee ci man subhaanahu wa taala loolu nag bi mu amee Yuusa moo yoroon yaa ngi dégg eh, eh, eh, jën boobu noonu Yuusa moomu continué woon na na na ci xare bi di gén bi di xeex yaa ngi dégg ak moo tax ñu ne ko jihaadu Yuusa gis nga yonent Yàlla sallallahu alayhi wa sallam bi mu demee ba mag nekk na ci jihaad waaye ban jihaad la njëkkee mooy jihaad beexal sa bakkan jihaad beexal sa bakkan loolu mooy la loolu lañ tuddee al i'tizaal yonent Yàlla sallallahu alayhi wa sallam i'tizaal la njëkk a def defee mu ko defee ci xaaru Hira moom nga dégg bàyyi naan ci saari man waxtabil dikral axaani waxtabil mooy berul soril bàyyil dikral axaani yu neex yi war mi bil bil bali saani sànneewu ak ñi nga xam ne dañoo rafet wasala maxtuma dinaani ak ñi nga xamante ne dañ le kasteeg maa ngi tuddee sallallahu alayhi wa sallam bi loolu amee ah ci la ci la ah, Moussa ci la Moussa xeexee xeex bi ba yàlla may ko ci ndam waaye xeex boobu ñu jox ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi li mu njëkk a def mooy xeex ak bakkanam te mooy ber bi doon beru ca Xaafira ba malaaka bi fekk foofu noonu naan ko iqra bismi rabbik yaakaar naa loolu suuf yaa ngi yëpp xam nañ ko. moo tax ci yoonu suuf yi ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xataa ci jamono yonent sallallahu alayhi am na ñoo xamante ne noonu lañ jëlee yoon yi ñi ñu tuddee leen zuhaat zuhaat mu ñu dëddu àdduna ñi ñi ñu tuddee leen nusaat mooy ñi nga ne ñoom dañoo maandu noppi ci seen bopp nekk ci seen bopp rek am ñoo xamante ne dañ leen tuddee al mooy berukat yi ñoom soxlawuñ jaxasoo kenn foo leen fekk rek dañoo beew bokkoon na ci ñooñu mooy xaritu Souleymane boobu noonu mooy Gifaari Abu Zarin al Gifaari Abu Zarin yonent bi nee na ko yow da ngaa wat ba boo dee ci ci ci ci wéetaay ngay dee radiyallahu anhu ginnaaw bi jox na yonent bi njàmba maanaam jihaadu Yuusa yonent bi jihaad na waaye lan la mujj a wax ci jihaadam rajaana min al jihaad al asqari ila al jihaad al akbari tukkee nañ ci jihaad bi gën a ndaw ñu ngi jëm ci jihaad bi gën a mag saaba yi ne ko wa mal jihaad al asqar wa mal jihaad al akbar ya rasulallah lan mooy jihaad bi gën a mag mu ne leen mooy eh, eh, jihaadu nafsi mu nga xeex ak sama kan moo jihaat bi gën a mag te jihaat boobu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ci njëkk ñëpp mboolem jullit ñi rek képp koy def yaa ngi ko royee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daraay àdduna sufu ko woon daraay àdduna ñoru ko woon yàlla ubbil na ko mboolem magasin wu wërsëg yi mu ne yàlla tëjal sa magasin yi te nga bàyyi ma may xiif wala nga bàyyi ma tey ma ma mar ya wala ma suur. dégg nga bis bii ma xiif bis bii itam nga bàyyi ma ma ma suur lii la yoon sallallahu alayhi wa sallam waxoon dégg nga yàlla subhaanahu wa taala fekk jiitu na yàlla xamal ko mboolem bi nekk ci asamaan ak suuf bi commencé ak fi àdduna bi jeexee wa sallam ak wa sawtu daawuda ñu ne yonentu bam nañ ko jox baatu daawda daawda yàlla daf ko mayoon dafa neex baat waaye yonent moo ko gënoon a neex baat daawda bu daan way picc yi dañ koy sabal picc yi dañuy naaw ñëw tiim ko daawda su doon way montagne yi dañ koy awu ndax neex baat moo tax daawda fépp boo xamante ne wax nañ ne fa maanaam borom baat bu neex aalu daawda la ñuy tuddee maanaam mooy ñu ñu daawda comme suñu zakiri rek ñoom aalu daawda parce que daawda alayhi salaam yàlla daf ko mayoon suy wëy rabu àll yi dañuy génn di ko seetaan ndax baat bu neex alayhi salaam loolu nag yàlla mayoon na ko yonent bi sallallahu alayhi waaye mayoon na ko itam. lenn ci ay saabaam lu mel ni ki abu musa al ashari abu musa al ashari yàlla daf ko mayoon mu neex baat neex baat boo xamante ni dafa a dayoo mbooleem saaba yi suñ daan toog dégg nga ah, dañuy wax ne woo leen abu musa al ashari mu fàttali ñu yàlla mu jàngal ñu alquran abu musa nekk di jàngal alquran ñoom ñëpp ñu toog di déglu nga gis na yëfi neex neex neex na lool ba. benn bis Seydina Omar Ali eh, eh, radiyallahu anhu mu toog ñuy jàng alquran Abu Musa al-Ash'ari yi di jàng alquran ba waxtu julli jot benn saabiyu jóg ne yaa amirul mu'minin xadaana waxtu salaat yow buru jullit ñi waxtu julli jot na ah Seydina Omar dellu ko tontu na ko awala saabi salaat xanaa du ci julli lañ nekk kon gis nga ni Mawlaa Thierno Sane dem waxoon wa ma salaatu illa sillatu julli daal du dara lu nga jokkoog yàlla loolu la saaba yi def keroog mooy ñu ngi def tadabbur te alquran moo wax ne falaa tadabbarul alquran xanaa du ngeen seetatal alquran mooy julli na ngeen ko neexal yàlla moo wax loolu loolu moo tax tajwid ñu koy jàngale ngir booy jàngal alquran nga neexal sa baat ak lan ak hubbu dañaal ak mbëggeelu dañaal dañaal yàlla daf ko mooy moom itam mu mën a bëgg ñu ne mbëggeelam gi nañ ko jox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak waqaara Ilias ak wégeelu Ilias Ilias yonentu loon ne dafa fekk woon dafa wegg woon itam ñu ne wegeel googu noonu nañ ko jox yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam ak lan ismatu ak mooy ak Yahya Yahya daawut mooy yàlla alayhi salaam yonentam yàlla te yonent yi daawut mooy ay maasum na lañ waaye lu mën a xew fese façon bu nekk rek gaa yi fexe nañ ko moom Yahya ngir mooy yàlla mu bañ a mooy yàlla de moo tax ismatu Yahya yàlla ñu ko yàlla defal ak lan zundu Isa ak ak dëddu Isa yonent yàlla Isa alayhi salaam yàlla daf ko mooy mu nekk ku dëddu àddina te li koy jàngale mooy benn bis dafa toog di nettali ci benn waay di tagg waay di wax moom jikko yu rafet di nettali ci moom melo yu rafet ba yàgg am mbokkam mu ne ko waa yow yàlla yónni ndax xam nga ki nga tagg nu mel ci mu ne ko naka la mel ci yow naka la mel man. mu ne ko fu mu toll rek lu bon lay wax ci yow fu mu toll itam daf lay xas fu mu toll itam daf lay saaga mu ne ko waaw kooku loolu la xam ci man waaye man li ma xam ci moom laa wax ci moom loolu nag kenn ku nekk war nga koo jàngat mooy doomu aadama bul sëgg ci deram di ko wax lu ñaaw doomu aadama fexeel ba bu ko jëw fexeel ba bu toogee la ngay wax ci kanamam soo laqoo itam na nga wax loolu ci ginnaawam le bul musa toog mukk jëw sa sa sa nawle wala ngay sa nawle loo xamante ne lu bon la loolu moom la ju hadis bi ñu naan su ngeen demee ci jàkka yi bu leen taf li ci jàkka yi wala li war jàkka yi loolu luñ ci jublu yëpp jàkka yi du dara lu dul doomu aadama rek doomu aadama mooy jàkka bi gën a jege doomu mooy jàkka bi nga xam ne moo gën a mag ci jàkka yi de loolu nu mu nekkee yàlla dafa wax ne wa annal masaajida lillaahi jàkka yi yàllaa ko moom yàlla ne man xajuma ci asamaan xajuma ci suuf waaye li ma gën a yaatu mooy xolu jaam bi ma gëm kon dëgg-dëgg xol boobu nga xam ne foofu la yàlla xaj foo dëgg-dëgg foofu mooy jàkka yàlla bi subhaanahu wa taala kon jàkka jooju noonu soo ëlbatikoo di tafli ci moom mooy ngay wax ci moom lu ñaaw nga koy jëw nga koy xas wala yu mel noonu na nga xam ne yaa ngi tafli kat ci xibla jublu xibla te loolu sharia daf ko sib na nga xam ne yaa ngi tafli ci biir jàkka yi na nga xam ne yaa ngi tëf lu wër jàkk ji te loolu sharia da ko sib ah Abu Yazid al-Bastami dafa mos a dégg benn wali yàlla ñu koy nettali karaama ya muy def kéemtaan ya muy def ba benn bis mu toog mu ne moom daal dafay seeti ko bi mu demee ca jàkkaam ja mu toog ci buntu jàkk yi ñu ne ko wali yàlla bi mu ngi ci biir dafay julli waaye su noppee léegi mu génn. bi mu noppee mu wëli yàlla bi bi génnee ci la tëf li rek jublu penku Abu Yazid ne du kii laa doon seet ñu ne ko wëli yàlla bi doon def karaama yi mu ngi nii mu ne du mu ne koo xam ne mënta sàmmante ak te shariatu mu ne kooku mënuma nangu mukk ne wëli yàlla la de te bokk na ci atte sharia yi nga jublu penku ni tëf li loolu dañ koo sib loolu a boo demee ci butunu hadis bi nga fekk bàyyi moo la koy jàngal parce que baa moo la xamal xaqiiqi ci jàkka baa moo lay xamal ne itam bu taf li jëm ci jàkka yi de naag benn mbokkam wala benn taalibeem mu jox ko taalibe bi ba muy lekk mburu mi. taalibe bi lekk ñetti mburu yëpp ah, ah, ah, ah bi heure añ jotee Isa woo ko ne ko ana mburu yi ma joxoon ngir ñu añ mu ne ko benn bi de gisuma ko Isa ne ko naka lay loolu demee te mburu yëpp ci sa loxo la nekkoon mu ne ko gisuma ko de Isa ne ko waa baax na ñu continuer ñu dem ba yàgg rek Isa tasarruf xeer soppi ko or mu jël jalu or bi xaaj ko ne ci xaaj mu ne benn xaaj bi man maa ko moom beneen xaaj bi yow yaa ko moom mu ne beneen xaaj bi nag ki lekkoon or bi ki lekkoon mburu mee ko moom taalibe Isaa bi ne ko man man maa ko lekkoon mu ne ko waaw yow yaa may wuruj ci ànd gi ànd ngay lekk sama lal xoolal suñ sëriñ moo daa Ceerno San Dem lan ñu jàngal foofu noonu jàngal nañu àndoom ak baay ni Isa àndoon ak taalibeem bi Ceerno moom yàlla fagal na ko loolu mu ne durant li may ànd ak sëriñ bi musuma koo nekkal dërëmam lu li nga xamante ne moom la ma ko joxoon ci sara ci xaloo boo xam ne moom laa ko doon defal radiyallahu anhuma kon nañ bàyyi xel ci loolu ci njàngale yooyu bi loolu amee mu ne ko léegi yaa ngi noonu or baa ngi noonu jëlal ah waa ji jël or bi muy xeex ak or bi ndax atun ko or bi daa bëri ba ay tuutikat fekk ko foofu jàpp ko rek sotoo ko doo mu dee ne benn nit ci or bu tool nii kii na dee ñu rey ko ñu nangu or bi ñoom itam ñetti nit lañ ñu xaajoo or bi biñ ko xaajoowee ñu daal wax ne. ñoom itam dañoo xiif waaye kenn na dem jëndi mburu ci ba bu indee ñu lekk kenn ci ñoom dem ca dëkk ba jëndi mburu moom itam mu fexeel leen mu jël seen mburu yi poñ sa def ci poson ngir suñ ko lekkee ñoom ñu dee mu jël seen wàll ci or bi ñoom itam ñu ne nañ ko fexeel bu ñëwee nañ ko sotoo ñu dóor ko mu dee ñu nangu wàllam ci or bi gis nga ñoom ñaar ñëpp wala ñoom ñett ñëpp. ñu ngi fekkalante <coughs> bi loolu amee bi loolu amee waa ji dem ca dëkk ba ñëw indaale mburu mi te mburu mi yëpp mu ngi ko soosee posam bi waa ji nekk rek ñu sotoo ko mu dee. ñoom itam ñu ne balaa ñu yóbbu or bi lekk suñ mburu mi ñoom itam ñu lekk mburu mi ndeke mburu mi poso na ci nekk ñu dee yonti yàlla Isa dem ba ñëw romb leen ñoom ñëpp ñu dee ak jël or yi mënuñ ko yóbbu mu ne leen yéen a ngi noonu àddina ngi noonu moo tax soo ànd ak sëriñ bul ànd ak moom ngir àddina àddina bi moom mooy jëmi or bi moo tax ñu ne àddina njéemi bala jigéen la boo xam ne képp ku ko mas moom kenn mënu koo suul de moom àddina lu dul koo xamante ne jublu nga yàlla subhanahu wa taala bi moo tax ñu ne zahid dëgg mooy yonent yàlla Isa alayhi salaam daawut sol yére yu diis yére yu woyof la daan sol mu nekkoon koo xam ne ko newetoon la alayhi salaam après malaaka yi aminatu mu ne mu dégg malaaka yi naan waar misu fi axlaaqi nabiyina na ngeen jël Muhammad ngeen laxas ci moom wala ngeen dugal ko ci biir jikko yonent yi mboolem yonent yi seen jikko yi na nekk ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax yonent yi sallallahu alayhi wa sallam loolu lay jàngal ci rañaan bi demee ba baytil maqdis jiite na mboolem yonent yi lu tax mu parce que mboolem jikko yonent yi ñu ngi ci biiram moom Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy sabab mu jiite mboolem yonent yi de ak seen maqaama ba radiyallahu anhu moo tax mu ne wa atatal amlaaku summa tadalla kullu nujumi li mifdaali malaaka yi ñëwal ko ñoom ñëpp ñu wàcc ñu jël yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yóbbu ko mboolem ci ko yi nga xam ne ñu ngi ko doon wax ci yonent yi ñu sol ko ci ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba mu des jikko joo xam ne jikko aadamitu la te mujj gi itam Jibril ak Mikaayil wàccaan nañ ñu opéré ko dindi jikko aadamitu boobu noonu ci moom ndax yonent bi sallallahu alayhi wa la loo ngay dégg bàyyi di tagg naan shaqahu summa shaqahu summa aydan baada haadani shaqahu binti xaalid sallallahu alayhi wa sallam shaqahu xotti nañ ko summa shaqahu ñu xottiwaat ko summa baada haadayni ginnaaw ñaari at xotti xotti yooyu noonu shaqahu xottiwaat nañ ko binti xaalid ngir mu jot tàkku jëfam de sallallahu alayhi wa sallam bi loolu amee ci nga gisee nag yonantu daal di gane si àddina mu ne wadaat fi daari ibni yusuf aw bil rabmi wa shaabi xul xawlu julli rijaali wadaat moom yon moom aminatu wàccee na yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam fii daari ibni yusuf mooy kër ibnu yusuf am na ñu wax na yonantu bi kër ibnu yusuf ci la juddoo am na ñu wax na déedéet yonantu bi sallallahu alayhi mu ngi juddoo ca eh, eh, Ratmu foofu la gën a si àddina am nañu wax ne déedéet yonent bi sallallahu alayhi wa mu ngi juddoo ci chef bu Abu Talib waaye mu ne xawlu julli rijaal yi lu gën a bëri ci góor ñi wax nañ ne chef bu Abu Talib foofu la eh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam juddoo moo tax bàyyi itam loolu la àndal moo tax mu ne wa daal fii Yusufa aw bi rat wa chef bi xawlu julli rijaal yi nuuru shamsin tabazaqat أن شمس المصطفى شاشة عبد الله مدراني نور شمس leeru jant gi sallallahu alayhi wa sallam jant ak yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam mooy jant ak njub jant ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy jant ak dindi kéeféer jant ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy jant ak def nit mu nekk ku nite jant boobu nag la wax ne nuuru shamsin leer ak jant bi ah tabba zaxat cee ñaareel na maanaam sànni na ay rayons. inna shamsal mustafa jant yonent yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam shashaat maanaam leeral na sànni na ay rayonam fii zalaati zalaali maanaam ci leen dem ak réer yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekkoon na nit ñi nekk ci réer yonent bi sallallahu alayhi wa na nit ñi nekk ci kéefër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na nit takk ko kaay nga sa sama jabar ji amee doom maa moom doom ji waaye ma fay foofu la ñuy tolloon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekkoon na ku am doom bu jigéen nga gas ba mu xóot ñu suul la rek nga dee benn yoon foofu la yonent fekkoon humanité yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekkoon na nit su ëppee moromu maanaam moromu nitam doole mu ñëw rek faagaagal ko nangu ay jabaram nangu ay doomam nangu alalam foofu la nekkoon. te loolu moo dund rab yi rek moo dund baay may foofu la yonent sallallahu alayhi wa sallam fekkoon àddina bi moo tax mu ne nuuru shamsin tabazaxat inna shamsal mustafa shasha abdallah mantalali marhaban bi rabii fii ataana mustafa alxalqi wa wa xam mooy saali baa mu ne maa ngi ndokkeel rabiul awal rabiul awal mooy weer bi nga xam ne ci la yonent sallallahu alayhi wa sallam gane si àddina marhaban maa ngi tatagal bi rabii ci rabiul awal fii ci moom rabiul awal ataana ci la ñuy dikkalee kan Mustafa al xalqi nga xamante ne moom lañ tànnoon ci mbindee fi sallallahu alayhi wa sallam soo xamul kooku waaw wa xam mu risaal yi mooy kii mottali mboolem yonent yi mooy kii tëj buntu risaala sallallahu alayhi wa sallam fii nag Baye am na lu ñu fi jàngal moom ci beneen baytam ba wa zal abdu faanin laysa fii baqiyatun وما هو إلا المصطفى للمناقل وما هو إلا أحمد ومحمد وما هو إلا ما وراء لقابلي صلى الله عليه وسلم بايمونه وذا العبد الفاني جنبي دفا جيخ ليس في بقية در نكوت ci moom lu des mu ne وما هو إلا المصطفى للمناقل mu ne jàmb du kenn ku dul Moustapha ñeen ñuy tuxal ñi kon su la waxee ne marhaban bi rabii fii ataana Moustapha al xalqi ki nga xamante ne moom lañ tànn ci mbindeef yi te Baye waxoon na ne la man maay Moustapha loolu jar naa bàyyi xel sallallahu alayhi wa sallam soo xamul kooku mu ne mooy xam mu risaali moo tëj buntu risaala mu ne soo xamul yonent boobu naka la dikkee jaa al murtada bi tarfin kahirin bi inaayati rabbina al mutaali sallallahu alayhi wa sallam jaadal murtada bii ren sallallahu alayhi wa sallam di ñëw mu ne ba tarfin tahilin xeet yi dañ koo tusungal woon yonen su dafa tusungalu woon loolu mooy sabab góor di tusungalu te boo tusungaloo rek da ngay rafet loolu lan lan mooy sabab bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo juddwaale tusungal dafa judd rek ñu tusungal ko moo tax mu ne jaadal murtada bi tarfin tahilin bi inaayati rabbina al mutaali loolu yëpp ci sàmm ak yàlla la de. yaa yàlla mi nga xam ne mooy suñu borom waaye moom mooy aji kawe de waawa maqturu surratin waawa maqtunun daynun zay daynun akrim bi zaydi rijaali sallallahu alayhi wa sallam yonent ba mu juddoo mu ne waawa maqturu surratin moom rek mooy koo xam ne danga dafa juddu fekk dagg nañ jumbax ba kan moo dagg jumbax bi ñu ne malaaka yi ñoo ko dagg de. waaye amul kenn koo xam ne tiim nga jumbax ko yonent sallallahu alayhi wa sallam nga dagg ko yonent moom dafa judd rek fekk ñu dagg jumbax bi de sallallahu alayhi wa sallam jar na bàyyi xel beneen bi itam wax wa maxtuunun wax wa maxtuunun dañ koo lakkaloon moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lan mooy lakkal mooy dañ koo dugaloon néegu góor amul kenn koo xam ne tiim nga awra yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba lakkal ko loolu amul yonent dafa judduwaale ñu lakkal ko. loolu itam jar na bàyyi xel de xam ngeen nit suñ ko lakkalu am na kiiraay bu dox diggante moom ak dëgg-dëgg awraam kiiraay boobu nag mooy sabab ñu koy dagg ngir mën a dindi kiiraay boobu noonu loolu dafa am lu muy jàngale ishaara nag ci sufiyanke yi waaye dahiinun dañ koo diw itam lan lañ ko diw xaw ma karise laam xaw ma rob laam xaw ma lan lañ ko diw waaye daal yoon sallallahu alayhi wa sallam bi mu juddoo dañ koo diw ba mu niin bat moo tax bàyyi ne dahiinun dañ koo diw ba mu li leer bi nga xam ne mu ngi ànd ak moom ba mu jollee aminatu mu ne moom sax ci boppam dafa jàng ci leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne mu gis ko mu muuñ mu teen kaw baa mu ne teen ci kaw boobu lim ci jublu wala lu muy jàngale mooy mbiram dafa fas yéene kowe te moom itam ku fas yéene ko melal sallallahu alayhi wa sallam baa tekki na akrim bi zeyni rijaal yi waaye waaye teralal tara góor ñi képp kuy rafet yonti yàlla moom sallallahu alayhi wa gën a rafet képp kuy jaay taar yonti bi sallallahu alayhi wa sallam moo la gën a rafet sallallahu alayhi moo tax bu daan génn nga dégg Aïcha di ko tagg naan ko góor gu mel ni yow jigéen musul ko si ko jur góor gu rafetee ni jàngalekat ba moom mooy naan wa abyadu yustasqa al-ghamamu bi wajhihi fi mal al-yatama ismatu lil-amili sallallahu alayhi wa sallam hamalatul amlaku nahwa jinanin wa biharin wa badaru filali ah bàyyi ko dëkk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jikko yi ñu def ci moom te mooy jikko yi ñu doon wax sànq jikkooy dañaan mooy jikko Isa jikko Yahya jikko euh, euh, seen ndeyjoor moom la seen càmmoñ moom la seen biir moom la seen biti moom la ñoom dégguñ kenn gisuñ kenn ku dul yàlla subhanahu wa taala moo tax ñooñu tëggi ñoom ñooy malaaka yi bi loolu amee yow ginnaaw bi nga fan naa wacci zaatu yàlla bi léegi nag ñoom ñoo lay jël indi la nag ne la léegi yaa ngi door agsi ci pays bi ñu commencé nag di la waxtaanal xam nga xadaraay sàngam xam nga maqaamaay sàngam xam nga pays sàngam xam nga yonantu sàngam Samsun ñu jàngal la leen ñooñu nag soo leen jàngee rek nga gis ni li Baay doon maa ngi nii di dox di ànd ak góor yi Serigne Touba ma al maa ngi nii di dox di ànd ak góor yàlla yi waxtu woo xamante ne yéegee na leen maa ngi nii di dox góor yàlla yi. moo tax malaaka yi ñu daal ko jël moom Muhammad sallallahu alayhi naaw wa jinaanin ñu yóbbu ko ci aljana yi nag aljana mooy lan ñaari aljana moo am aljana bi nga xam ne dafa fàttu boobu kenn xamul kañ lay ñëw ak aljana bi nga xamante ne aljanaay shuhud la aljanaay shuhud bi ci njëkk mooy kër yu rafet yi nga dem Amérique nga xam ne ci aljana lañ ne nga dem Europe nga xam ne ci aljana lañ ne nga dem fu nekk rek mboolem li yàlla waxoon ci alquran ci aljana yi boo fa demee rek nga gis ñoom ñu ngi koy dund de waaye am na beneen aljana boo xam ne keneen ku dul yàlla mënul na koo jox te mooy aljanatu maarifa loolu moo gën a neex lépp waxtu wu tàbbee sa xol bi mboolem cafkaay àddina dootu la neexati cafka boobu rek moo lay neex moom la yàlla di wax ci hadis mu ne waxtu wu nit ñi duggee aljana mu ne waa aljana dinaa leen feeñu benn génn aljana bañ ne dafay albutiku soof leen bañ bëgg a génn aljana boobu aljana boobu nag dégg nga ci la yóbbu yéen ci yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam mooy lan mooy aljanaay maarifa dënn bi fer ne dell ak yàlla yonentu boobu soo ko xamul mu yonentu li nga xamante ne yóbbu nañ ko tam ci géej yi am géeju nubuwatu dafa am géeju wilayatu dafa am géeju xilaafatu moom la jawtu kamal naan wa nuur al akwaan al mutakawinati al aadami saahib al haq rabbani al bi mudun al barimaniyati li kulli mutaaridin min al buhuri wal awaani déglul wax joonu li kulli mutaaridin ñeel képp koo xamante ne yaa ngi nampé min al buuri ci nubuwa foofu lañ dugal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam baaru nubuwa dajale na ci xam-xam loo xam ne ah amul kenn koo xam ne ci géej yi dajale na foofu de yaa ngi dégg moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy jëmmi xam-xam boobu noonu gis nga lu tax mu nekk jëmmi xam-xam bi parce que rabbi zidni ilman yow yàlla dolli ma xam-xam nga gis ne xam-xam xutbaaniyatu ñoom toll na ci téeméeri xam-xam ak fukk ak benn xam-xamuñu boo moom jéggi na loolu li dem yaa ngi dégg wax ji te loolu ki ko jàngal moom mooy xudar xudar bi mu dajee Moussa mu ànd ak Moussa wëndeeloo moom ci pays yi bañ demee ba ci tefesu géej gi muy tàggatoo Moussa mu tawilal Moussa xam-xam yi mu doon dund ak Moussa mu jékki-jékki rek. mu ne ko naka lay waxee ñun mu ne picc bii daf ñuy jàngal liñ waxtaan ci xam-xam yëpp mu ngi mel ni benn pepp rek boo jëlee ci géeju yàlla bi noonu la mel ci xam-xamu yàlla bi xaaj nu yëngal sax xam-xamam bi de xam-xamu yàlla bi nag mooy xam-xamu nu bu waa loolu nag yàlla jagleel na ko Cheikh Tidiane moo tax na ma xam-xam bay wa bay na rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sama diggante yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laa yaalamu malakun muqarrabun malaaka bu jege yàlla xamul ko wala nabiyun mursalun yonent bu yàlla yónni itam xamul boobu xam-xam de radiyallahu anhu xam-xam yooyu mooy xam-xamu wilaayatu xam-xamu wilaaya nga boole xam-xamu nubuwatu loolu yëpp la Cheikh Tidiane doon moo tax Cheikh Tidiane radiyallahu anhu moom itam kenn xamul ko de. mu ne jël nañ Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñan ñoo ko jël malaaka yi wax naa la malaaka yi ci suuf yanke yi ginnaaw ñooñu fan la leen yóbbu ci aljana yi aljana yi mooy xarab leen fan ak ci géej yi géej yi nag mooy maqaama yi nga xam ne moom la ñuy dund maqaama yooyu nag waxtu woo jógee bañ jàngal la haahut xam ne xaawoo géej a nga fa goo xam ne lépp lu fa mos a dugg lan na dootul lekkati te xaawul waxtu wu taxawee nekk di xaawul benn tëjin lii dootul taxawaat mboolem tëjin yaat yi dañuy màbb dugg ci biiram moo tax xaawul booy xool ni ñuy bindee xuruufu xadraat yi da ngay fekk moom dañ koy benn du taxale ko benn xadra wala du tax ko benn xadra de parce que moom mooy nisab bi mboolem xadraani ñu gonge ko ci moom waaye moom gonge ko wut fenn de ko mooy Haaruna xam-xam nekk foofu ci moom nag boo xam ne xam-xam boobu mboolem ko fa mos a yegg dégg nga yow nag nga dootoo moom la yàlla joxoon yonent bi sallallahu alayhi wa bi yonent bi di wax ne zanantoon naku na man fi samaawaati wala ardi qad maatu yaakaaroon naa lépp lu nekk ci asamaan ak suuf dee na dara nekk tut yaa ngi ku dul yàlla subhaanahu wa taala yonent mu ne xaqiqa ak xam-xamu suru xadri waaye nanguwul wax xam-xamu suru xadri mu ne xam-xamu suru xadri dee la bu ma yàlla dee nee na naa ko noppee sama diggante ak moom te mujj dundam woon na saaba yi ne leen kaay leen ma bindal leen loo xam ne sama ginnaaw du ngeen tàqale ko ba dem ba ngeen di dee. moo tax waxtu woo xamee ne yaa ngi puus ci géej yi di nga xam lan mooy xaqiqatu dégg nga li kulli mutaaridin min al buuri wal awaani sallallahu alayhi wa sallam mu ne wa baadaru fil haali ñu gaaw ci saas ñu si waat ko ñu indiwaat Muhammad ñu jox ko Aminatu Aminatu nag mooy sëriñ bi moom mooy muqaddam bi moo yore amaanatul kubra bi ginnaaw ba nga zikaral nañ ko bam fa naaw yéegee nañ ko ci asamaan yi kooku mooy zikar bi ñu zikaral. waaye bañ ko dugalee ci géej gi nag ak ci aljana yi aljana yi mooy xaal ya mu junnoon neexaay bi waaye géej gi nag moom mooy maqaama yi nga xam ne ñu ko koy yéegee te loolu majj bi ñoom ñoo koy yéegee ñu daal di dellu si waat nag xamal ko liy dëgg tey dëgg ne mboolem li fi nekk lépp way kasaraabun waqiruhan lil maani mboolem li fi nekk nekkul na nga sàkk ruhul maani te ruhul maani mooy récepteur bi nga xam ne moom lañ lay monteel foo toll rek yaa ngi jënd ak pay bi lu pay bi wax nga xam ko lu pay bi junj nga xam ko yaa ngi dégg loolu moo tax Cheikh Tidiane ne baada maqaami fanaa fi laay kun kay fa maat saa fa ilmuka laa jaarun wa fi'luka laa wizrun radiyallahu anhu mu ne fata baddat léegi nag ci la commencé feeñ lan moo feeñ anwaaru leer yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa anaara ñu leeral fan lañ leeral usku busra gox busra yi mu ne lahum leeralal ne ñu ñëpp fa yaalal jamaali ey xéemul ndaw boobu le taar gis nga waxu ndaw boobu le leer dafa wax ne xéemul boobu le taar taaru kan taaru yonente bi sallallahu alayhi kon bu la waxee taaru yonente sallallahu alayhi wa sallam rafet na rafet boo xam ne yaa ngi dégg leeral na mboolem bokk busra yi ah loolu sufiyanke bi na ñuy jàngale waxtu suuf yi bi àggee ci yàlla salaatul fati saf sëpp ci yaramam su génnee da nga gis kanam gi ni mu rafetee yaa ngi dégg da nga gis bëri ni muy leeree da nga gis mboolem jëmm ji naka lay rafetee nga wax li góor gi waxoon yéen doom wax leen ma fu ngeen di dugg di cuubu ma dun fa cuubu man itam ah bi loolu amee leer bi nga xam ne mu ngi leeral goxu Busra lan moo xewoon Busra Busra ñi gëmuloon yàlla ñoo fa gënoon a bari Busra jaamu kat ndax ñoo fa nekkoon Busra. buur yi ñoom ñoo fa nekkoon doon falu ci benn palais bu ñu tuddee Iwaanu Kisra te buur ba nekkoon fa di anu anu Shanwaana boo demee ci jeexalitu seyrul xal bi nga fekk bàyyi di wax loolu ak Kisra anu Shanwaana jaa Muhammadun ah bi loolu amee ñoom ñëpp xërëm lañ doon jaam ñu jékki-jékki rek gis xërëm yi commencé wadd xërëm yi di wadd xërëm yooyu. tey suufi bi la nu mu nekkee suufi bi suufi xoolal yàlla ne la feeg dañoo di def na nawaafilal xayri di sàkku jege ma dinaa dem ba nekk sa bët yi kon léegi yow avant yàlla di nekk sa bët yi kon sa bët yi lan la woon bëtu lan la woon bët yooyu nekkoon te nekkuloon bëtu yàlla loolu xërëm la woon de lépp loo mës a xool rek xërëm la yàlla ne dinaa nekk sa nopp yow yàlla bu nekkee sa nopp yi ana yow sa ne nopp nga amoon kon avant yalla di nekk say nopp nopp yooyu itam de xaram la de lépp loo mus a dégg nekk xaram la yàlla mu ne dinaa nekk sa bakkan bi yow kon la nga doon xencu avant yàlla di nekk sa bakkan loolu moo tax lépp la mus a xencu ci xet bu neex bu naqari <coughs> lépp xaram la de yàlla mu ne dinaa nekk sa làmmeñ bi soo ma musuloo ma musal la soo ma jéggalee ma jéggal loolu kiiraay la yàlla su nekkee sa làmmiñ kon ana ko muslu foofu kan la yàlla di muslu yàlla du muslu kenn ndax ki nga xam ne moom la ñuy muslu ci moom moom moo ko bind ci kooku sañul ko song mooy iblis mboolem kiiraay dox nañ yaa ngi dégg dagg nañ diggante yàlla ak iblis moo tax ah kiiraay boobu suuf yi bee ko moo waxtu woo demee ba yàlla nekk sa làmmiñ yow dootoo waxati yàlla wàcc na fa loolu mooy suufi bi nga xam ne yàlla wilaayaam rogaat na ci sa làmmiñ moo tax wali yàlla yi lii leen wutee am na wali boo xam ne wali bët la lépp lu mu xool rek dafay baax am na wali boo xam ne wali yu nopp la soxla bu mu mën a nekk su ko déggee rek soxla boobu faju na am na wali boo xam ne wali yu làmmiñ surur soo xamul bëgg njiit mu ne mooy kaaba bi nga xam ne mboolem musiba yi foofu la ñuy tawaaf ak seytaane yi dañ doon yéeg ci asamaan yi di deglu li yàlla di wax ak waa Malaw Daara waaye seytaan bañ demee ba ci yenn asamaan yi foofu nag la leen yàlla daal di sànni bombardement boo ci si suratu tabaraka da ngay dégg yàlla di wax loolu malaaka seytaane yi ba ñuy dem ci asamaan yi wa ja'alna fiha hujuman li shayatin mu ne après ci laa leen di sànni nag ay bombardement di leen bombardé ñoom seytaane yi ñuy daw parce que dañ doon déglu dañ di déglu kaddu manaw loolu nag mooy lan mooy xaatir boo xamee ne xaatiru seytaane yaa ngi yéeg ci yow rek na nga téye sa kuur salaatul fatihi nga bombat leen soo leen bombatee xaatir yi ñoom ñooy jógee ko ci bi moo tax xaatir ak fikra bokkut fikra nit moo koy def waaye xaatir ci yàlla la jógee ko bari na ñuy wax ne damaa xaatir ne xaatir déedéet xaatir ci yàlla la jógee ko su wàccee ci jàmm lu jàmm bi wax loolu mooy li am waaye fikra nag mooy nga toog di xalaat. sa xalaatu bopp mën a nekk xalaat bu baax comme nekk xalaat bu bon waaye xaatir moom lépp lu fa fekk lu ñu dëgg daf ko fa jëlee mu samp fa dëgg de moo tax mu ne rajama rajmu sàmma foofu le kulla rajimin bépp seytaane keroog bambar nañ ko foofu noonu seetaane waxtu bu nekk أمره الفاتح لما ولقى والخاتم لما وقنا بالحق الأكمل إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المقدار العظيم Abonnez sur notre chaîne Dahiratoul Fadly. Abonnez sur notre chaîne Dahiratoul Fadly. Dahiratoul Fadly kuñ formé war ngay sant Yàlla ñu nag di jël gëstu loo